loolu wàccal te Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna noonu di wax ak ñi nga xam ne mooy la police yow échappe député bi yéen a koy gis ni kii de Guy Marius Sagna ak député yi député yenn yenn membre yenn député yi nga xamante ne ñooy askan bi yéen ngi leen di gis noonu euh, ñu taxaw noonu ñu ngi noonu taxaw ci kaw oto bi force de l'ordre yi nag actuellement si ñun la ñuy ñëw nii ñun la ñu bëgg a gazé yéen a koy gis ni gis nga dóor nañ ñu gis nga ñu ñuy dóor ay bal gis nga force de l'ordre yaa ngi noonu di ñu dóor ay lacrymogène dañuy dañuy bañ ñu jege mooy ñoom Guy mari la bañ ñu jege gis nga len ñom Guy Marius Sagna ñoom la bañ ñun ñu jégué moto actuellement ñu nekk ni di ñu chargé su ko defee ñu bañ jël image peut-être xamna sûrement dañ leen wara arrêter arrêté motax bëggu tax ñu jël image motax moo ni instant yi ñuy pour ñu bañ leen pour ñu bañ jël image voilà yeneen koy gis nonu ñom Guy Marius Sagna ak yeneen membre yeneen député yi yeeyu askan bi gis na gis nañ ci ay député yu jigen actuellement ils sont peut-être euh, ils sont une dizaine taxaw noonu di manifester gis nga leen ñi nga xamante ni ñooy force de l'ordre di leen jéem a wàccee gis nga actuellement yéen a koy gis noonu. yéen ngi koy gis nii honorable Guy Marius Sagna

ñoo war a génne Ousmane Sonko ci lii blocus bii dafa war a jeex séquestration bii dafa war a jeex fii nag Sénégal nekkuñu ci réewum jaam président Macky Sall du suñu buur président la mooy moom président Macky Sall ak ak yelleef moo ko sut constitution du Sénégal moo ko sut donc Et nous voulons respecter le droit au président Ousmane Sonko le troisième mandat Jarouko, troisième mandat Jarouko, troisième mandat Jarouko, troisième mandat Jarouko, troisième mandat Jarouko, d'accord Nous nous rendons politiquement Ousmane Sonko Macky vote Ousmane Sonko dans les Ils ont brutalisé. Ils ont brutalisé Aliou Sané. Ils ont arrêté Aliou Sané. coordonnateur de la presse. voilà yéen a ngi koy gis nii. honorable yan kàddu ngay wax. adjoint au maire de Ziguinchor. adjoint au maire yan kàddu ngay wax deuxième adjoint au maire. deuxième adjoint yan kàddu ngay wax. wax li ñu teg Ousmane Sonko du dëgg du yoon. man maa Djibril Sonko. deuxième adjoint au maire de Ziguinchor. dinañu xeex. li ñu yoon may dinañu xeex ba ñu ba ñu ba ñu libéré Ousmane Sonko bu soobee yàlla li Macky Sall bëgg ci Sénégal du sotti Sénégal réew mu liberté la réew mu liberté démocratie la donc ñun fi mu ne nii ci xeex la ñu nekk te bu soobee yàlla dinañu xeex ba ñu am ndam te incha allah dinañ am ndam parce que le moment de libérer le Sénégal il faut que askan Sénégal bi yëpp xam ko c'est moment de libérer le Sénégal Nawa, askan Sénégal nous, nous faire, nous libérer Sénégal il est hors de question ñuy Nous ñu séquestrer Ousmane Sonko ci loo xam ne teguwul ci parce que pour séquestrer une personne il faut que il faut que juge lui joxe ordre boobu pour séquestrer une personne on n'est pas en état d'urgence il y a aucun document qui permet de séquestrer Ousmane voilà a des koy gis nii ñu ngi nii actuellement dañuy chargé. Il ne tirent pas en haut, mais il tirent en bas. Il tire les gens. Il essaie de les tuer.